nee na ñi enregistré ñu def mode avion sinon day yàq enregistrement bii dañ koy filmé quoi enregistrement nee na da ngay xaw a géré quoi ñi enregistré seen portable.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونصلي ونسلم على صفوة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonentam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira di ko ñaanal jàmmi yàlla moo ki ay saxaabaam yi ak i képp koo xam ne moo ngi xencu seeni njub ba keroog bis bénc ginnaaw loolu ñoo ngi leen di ndokkeel ci fan yu am barke fa yàlla subhanahu wa taala di ko ñaanal wala di ko ñaan li nga xam ne moom la ñu wóoragum ak la des yépp mu boole nangu te barkeelal ginnaaw loolu tey am nañu dars boo xam ne war nañ ko am ak ci kenn ci kilifa yi diine ji di al ustaz Sayid li yàlla mu ngi soog a dogal suñu gise tey waaye yàgg naa ko it déglu ci ay intervention yu bari fa jazahullahu xayra am na it ay conférence yoo xam ne waroon na ko def moom mu am ci gàllankoor ma wuutu ko ba ci weer wi paas rek la mujjee kon moom moomule ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko dalal it di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko fi nga xam ne foofu la am yéene àggale fa li nga xam ne mooy wóote islam yàlla yàlla defal ko ci lu raw boppam yàlla bari na ci mel na moom loolu dafay am solo thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane muy maraakibu taqwa comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci calendrier bi a taqwa mën ngaa wax ne hiya ad durra al mafquda ragal yàlla mooy urus bi réer ñu war ko wër fonk ko def ci yitte jàngat ko mën ko sàlloo mooy benn baat boo xam ne boo seetloo alquran yàlla utiliser na baat boobule ci sens yi ñuy utiliser waxi mu arab yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ngir importance su baat boobu bu ñu àndee nag ustaas bu mel nii fas yi ñëw dikkal ngir waxtaan ak ñun ci bunt bi dina jaadu ñu xeewlu ñaan yàlla yàlla ubbi xol yi waaye bi yàlla def tawfeex ci nopp yi ñu mën a déglu pour jariñu ragal yàlla yàgg nañu di ko dégg ñu koy waxtaanee ci sens yu bari mais thème bi ni ñu ko tëggee dafa am solo waxuñu rek a taqwa mu jeex waaye maraaxil yi muy escalier yi nga xam ne nit ki bëgg a àgg ci dara jooju rek fan lay jaar ci yar ba moom mu mën a àgg ci daraja li nga xam ne moom moo di taqwa parce que nit ki saa yu fa àggee dund ko rek réussir na àddina ak àllaxira kon comme lu baree bari ci temps bi dem na dañuy bàyyi oustaz mu dugg ak ñun ci li nga xam ne moom moo di thème bi ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla fekk ci làmmiñ bi yàlla defal ko tawfiqu ñun ñi nga xam ne ñun lay waxal ñu mën a am chance jariñoo li nga xam ne moom lay wax loolu lu yokk borom bi la subhanahu wa taala kon fal yatafaddal mashkuran fa jazakallahu xayran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا, اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما إخواني وليدعو كل منا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu rek am ñaari jéggulu yu ndaw ci thème bi ak retard bi jamono yi bi ma mbokk bi di wax affaire waxtaan wi dafa am koo xam ne moo yor sama calendrier moom laa doon jokkool waaye yàlla daf yu nattu mosquée boobu muy wax dafa sëj dafa sës ak église bi daanaka ñetti weer yëpp dañuy xeex foofu message yi jàll na fu nekk partout ci Sénégal génn sax Sénégal sunu jumaa ji la benn waay ñëw bëgg a tabax kër ba pare am ci autorités yi ñu koy jàppale. moo tax bi mu may wax tam bi sax par téléphone maa ngi woon tribunal dama jàppoon def ma ne asaru taqwa fil fard wal mujtama ma ko ma lancé ko noonu message ki yor calendrier bi mu bind ko mu téléchargé waxtaan bi démb ci guddi maa ngi woon ak maire bi ma génnee ma ñëw di wax ne man sama waxtaanu Rufisque bi samedi la après mu jox ma tam bi moo tax ma jéggulu ci bu baax a baax a baax retard bi aussi mi may ñëw nii daanaka une heure laa jógee fële te taxi laa jël mais diggante buntu Pikine ak fii nii Tëngéej daanaka oto yi dañoo tegaloo parce que dafa am ay choc yu bëri yu fi am oto yi dañoo laalante kon maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax ci ñàkk déggoo mu ma am ak moom te xam naa ne ci man la parce que man maa occupé te bi mu may wax loolu yëpp préparé wu ma ba nga xam ne fan yi fu nekk lañ dugg waxuma la sax église bi ñu sësal waaye dafa am ñoo xam ne foofu jàkka ji def leen gêné parce que yàlla moo defal foofu tawfiix ku fa fréquenté ñaari yoon ñett daal di wuyu si daaw bi duma fàtte sax benn xale boo xam ne semaine bi passé dafa am ku dem boole kook papam ne ko diw daal day dem ci jàkka ñoom diw bi te xam nga ñooñu la fa nekk papa ñu ne ko dama feebar wallahi su ma wéree dinaa la génne dëkk bi dootoo fa dem papa jooju la yàlla génne dëkk bi xale bi ñëw ci jàkka ja ndax yàlla génne na ko ci àdduna te xale baa ngay continuer di ñëw mooy bilaalu jàkka ja tey kon mbokk jullit yi pour tàmbali waxtaan bi rek mooy taqwa bi ñuy waxtaanee weer wi ñu nekk li tax yàlla sant nu nan ko woor mooy pour taqwa bi ñëw يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون mboolem ibaada bu yàlla sant nit na ko def yàlla taxul mu sant ko loolu lu dul mu am ci taqwa يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون kon daanaka lépp taqwa la amul benn jaamu yàlla bu yàlla sant nit lu dul finalité ba ci fa muy jeexee la fa waaj a war a jëlee mooy ragal yàlla bu dee jàng alquran lan la la war a julal mooy ragal yàlla xuzu ma aataynaakum bi quwa wazkuru ma fihi laallakum bu dee tabaski lan yanaala lan yanaala allahu luhumaha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu bu dee aj fata fatazawadu fa inna xayra zaadi même ku rey nit nañ ko rey suñ appliqué loi bi mu yóbbu nit ñi ci ragal yàlla walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaquun dund doomu aadama yëpp at taqwa la taqwa boobu moom mooy kalimatu laa ilaha illa allah mooy nañu kennal yàlla kon mbokki julit yi anna kalimata taqwa hiya kalimata tawxid wa azamu ma amara allahu tabaraka wa taala bihi huwa tawxidu allahi huwa la ilaha illa allah وقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها baat bi di baatu ragal yàlla mooy attaqwa baat la boo xam ne mooy baatu kennal yàlla mooy jullit bi su baat bi nekkee ci moom day teg yàlla ci palaasam dootul bokkaale yàlla xam nga li tax tey ndeysaan li mbokk bi ubbee léegi baat boobu la ñuy wër mais du mun a nekk du mun a nekk mukk lu tax du mun a nekk c'est parce que jaamu yi ñoo baaxul jaamu yi julli yi baaxul koor yi baaxul azaka yi baaxul sarax si baaxul aj bi baaxul aj màkka bi baax dara baaxul mbir mi su baaxulee li nga ci waroon am doo ko ci am wala ku ñu indiloon tey ay matière ciment pour mu tabax ciment bi varié birig yi safut weñ yi baaxul tabax boobu lu ngeen xalaat kër googu lu ngeen ci xalaat ah du taxaw kon sunu jaamu yàlla yi su baaxulee lan la yàlla waxoon ci julli inna salata tanha anil fahshai wal munkar tey boo simmee sa dàll ci bunt bi jàkk ji doo ko fekkaat ci buntu jàkk ji laa wax te ki ko jël da doon julli si wala boo fàtte sa portable si jàkka ji doo ko fekkaat te ki ko jël da doon julli si wala nga dem ba màkk di aj nga gis kuy tafuwaate ci biir rang yi nit nga gis kuy tafu di dagg caméra jàmbur yi kooku lu mu foo di woon mooy jaamu yàlla gi moo baaxut parce que niñ koy defee baaxul parce que niñ koy defee du lu dëggu ci ñun ci julli rek pour nit am taqwa yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne woon kii julli salli salaata mutawaddi jullil julli kuy tàggatoo kenn ku nekk ci ñun tey fii ci biir jàkka ji toog bu doon bi nga ne allahu akbar malakal mawt dafa ñëw sa nopp ne la boo sëlmalee da ngay dee dama leen di laaj leen laajal yàlla julli googu kuñ ko waxoon ci ñun noo koy jullee fii ah nooy jullee julli googu mbokk yi waaye teewlu bi sax dafay ëpp julli googu du nuroog sa benn julli wala waaw pourtant loolu la ñu ne sant julli yëpp na mel noonu mais duñ ko def moo tax li ñu war a am ci jaamu yàlla yi pour mu yóbbuñu fi ñu war a jëm du mun a nekk lan ngeen dégg ci Seydina Ali su demoon jihaad ba ñibbisi ñu koy faj kañ la ñuy xaar ba julli jot ba julli jot lan ngeen dégg ci yonente bi alayhi salaatu salaam su taxawee ci julli dañuy dégg dënn bi azizun ka azizul mirjal minal bukaa dañuy dégg dënn bi di xiixal lan lañ yàlla jàngal ci alquran qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashiun toroxlu lan la ñu lax dari jàngal lissalaati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin mu ne wala yanaaluhu illa alxaashiun kon jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañu war a def ba jaamu yàlla yi baax yóbbuñu ci kaw ñu dem ñu takk grade yooyu yàlla di wax jaamu yàlla yooyu mbokk yi su baaxulee fa yàlla bëgg ñu yegg duñ fa yegg nii ñuy jaamoo yàlla tey ci biir dëkk bi amul lenn lu mu fi changé ci sunuy melokaan ak sunuy jikko lu ko waral ndax jaamu yi ñoo baaxul moo tax du mun a am benn résultat bu muy jeexal kon su fekkente ne damay jël thème bi nga xam ne moom laa indi muy wax ci taqwa ba tey aathaar yi fi lxayaati lfard mu ne min simaariha fi xayaati lfard naylu lmahabatu llahi wa mahabatu lmalaika wa mahabatu nnaas gis nga ku am ragal yàlla ku jaamu yàlla ba loolu ñuy wax ragal yàlla nekk ci yow li nga ciy jële ci fir wi mooy li ngay njëkk a am mooy yàlla moo lay bëgg yàlla moo lay bëgg leneen mooy malaaka yi dañ lay bëgg leneen mooy nit ñi dañ lay bëgg xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibril jóge kaw asamaan ñëw ba ci yonent di wax ak moom bay ñibbi ne ko bu abu zar ñëwee nga nuyul ma ko yonent jibril moo ñëw waxtaan ak moom ci jàkk ji bay dem nuyu yonent bi di jóg ne ko bu abu zar ñëwee nga nuyul ma ko yonent bi daal di jommi abu zar nga ma wax de mu ne waaw mu ne ataarifu abu zar mu ne naam wa jamii malaika man fi sama yaarifuuna man dong du maa ko xam de mboolem malaaka yi ci kaw asamaan xam nañ waa jooju waa kooku lan la def ba yàlla xam ko malaaka yi xam ko jibril xam ko yonent bi daal di ne pat rek abu zar dugg si yonent bi yàkkamti téye ci loxo yi ne ko toogal mu toog mu ne ko abu zar yow lan nga def ba jibril xam la malaaka yi xam la mu ne ko julli gu may ju julli rek suratul ixlaas lay ñaan lu tax mu ne ko melokaan bi yàlla melal boppam ci saar bi amul ci beneen saar daf ma neex moo tax saa yu may julli rek loolu lay jàng li kasarati qiraati qul wallahu ahad kon ndeke soo amee ragal yàlla bénéfice bi ngay njëkk am mooy yàlla da lay bëgg mbokk yi ku yàlla bëgg la ngeen xalaat ci moom fii ngeen toog tey kenn ci yéen bu ko Macky Sall bëggoon woo ko téléphone léegi ñu def ko journal officiel diw de président def ko bëgg journal yëpp bind ko say mbokk lu ñuy xalaat ci yow dama leen laaj tontu leen say mbokk li ñuy xalaat ci yow boo amuloon kër boo amuloon oto boo bëggee tukki boo feebaree boo raflee parce que lu tax parce que président moo la bëgg bu la yàlla bëggee nag waruñu ko sax nattable wala nga romb président tey ñu ne Donald Trump bu la bëggoon mu toll fële ci Amérique di lancer message Sénégal am na benn sénégalais bu tudd nangam sama xarit la dama ko bëgg lu nit ñi di wax ci yow kii texe na sayet wala wala waaw mbokk yi ñii ay doomu aadama kese lañ ñu bëgg la rek say baax kon yàlla nag est-ce que yéen ngi misaal misaal bi te ñii li ñu am yàllaa leen ëppale de ndax li ñu am yàllaa leen ko may te yàlla walillahi xazainu samawaati yàlla nee na lépp maa ko moom magasin yi maa ko moom waaye waxuma loolu sax waaye walillahi miraasu samawaat ñee dañuy dee bàyyi ko man yàlla ma donnaat ko kon nit suñ ne suñ waxee pour yàlla bëgg la soo defee nangam yàlla bëgg la ndeysaan dafa am benn waa ju tudd xays xays dafa nopp benn xale bu jigéen bu tudd Layla ba mënatul gis mu romb rek ñu ne ko lii de xaju laylaa la rek mu topp xaj bi mu topp xaj bi rek pour gis laylaa mu dugg ci àll yi romb dugg romb dugg romb mu romb ay gaa di julli mu romb dem ànd ak xaj bi mu dem gis laylaa ba ñëwaat mu fekk gaa yi doon julli julli ba pare toog rek ñooñu ne ko eh kaa yow mu ñëw ñu ne ko yow yaa bon mu ne lu ma def ñu ne ko ñuy julli nga romb ñu fii mu ne boobu xaju laylaa laa toppoon man dama bëgg laylaa ba su ma gisee lu tax ak laylaa amatuma ci keneen affaire ah da ngeen doon julli fan ñu ne ko fii mu ne julliwaat leen ñu ne ko lu tax mu ne bu fekkoon ne da ngeen di julli kon du ngeen ma gis yàlla ngeen di gis kon julliwaat leen man ba ma bëggee Layla gisuma kenn ku dul Layla yéen bu ngeen bëggoon yàlla kon bu ngeen di julli du ngeen ma gis kon julliwaat leen ñun nag suñu problème mooy loolu dañuy julli di gis ñeneen di julli di déedéet di julli di xeex ci biir julli gi cey su ma sëlmalee bu ma demee kër ga tey cey su ma génnee mais kii daf ma yab di julli di xeex ci biir julli gi kii di julli di fayeeku bor kii di julli non c'est grave moo tax duñ dem jaamu yàlla yi du am benn résultat ci ñun parce que lu tax dañuy dañuy dañuy nii rek maanaam forme bi la ñuy def mais la taxoon yàlla di ñu ko sant ba boo ko doon def bu ñu lay jomp sa doo ko yëg loolu ndeysaan moom moo tax tey jaax jeexital yi mënatul am mahabbatullah bëgg yàlla wa mahabbatul malaika wa mahabbatu nnaas yàlla su bëggee nit day woo jibril ne ko man yàlla bëgg naa diw taxawal ci asamaan yi annonceel mboolem te yow na nga ko bëgg de mboolem malaaka yi nañ ko bëgg kooku lan may am su ko yàlla bëggee malaaka yi bëgg ko annonce lañ koy defal ci xolu jullit yi ñëpp koy bëgg tout le monde sunu borom subhanahu wa taala mu wax loolu ci hadisul qudsi mu ne maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in bi afdal mimma aftaradtuhu alayhi wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma' bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati yabsutu biha sunu yonente alayhi salatu wasalaam nee na yàlla bu bëggee nit nee na doomu aadama jaamuwul yàlla lu raw lu yàlla sant lu ko yàlla sant gis nga tey nit ñi dañuy jaamu yàlla ci Sénégal au lieu ñu yem ci leen yàlla sant ñu bàyyi fi li yàlla santaane di def leneen ma joxe misaal bu ndaw boo xam ne ci lañ nekk wu koor ñaata nit ngeen gis wooruñu ne dañuy joxe ndogu dëkk bi yëpp foo romb ay mbana ci ay ponkal yoo xam ne bu ñu téyee train mu taxaw dara dañu leen lëng la ngaaral saa waay wooroo déedéet non man damay joxe ndogu quoi pourquoi non loolu lañ ma sant loolu la ma sëñ bi sant du ma woor léegi waa ji joxe ndogu foofu ndogu boobu muy joxe def ko jaamu yàlla est-ce que yàlla moo ko sant ne ko joxeel ndogu bul wor yàlla li mu gën a bëgg ci yow mooy boo koy topp nga topp ko ci ni mu la santee toppee ma nii nga jël li mu la sant nga toppee ko noonu yàlla loolu la bëgg da ngay gis ku dul julli farata di xiyaamul layli ku dul dem farata ku dul dem farata di julli suba jàkka du dem tisbaar dem taksaan ñu ne dañuy xiyaam rek mu ñëw pour lu koy indi parce que dafa am ay problème yu mu bëgg a réglé dafa bëgg ñaan yàlla ci xiyaam bi ak mbooloo julli ni pour problème yi réglé wu looloo koy indi mais tisbaar ak takusaan timis gee suba kenn di ko gis ci jàkka ci loolu mooy suñ problème tey Sénégal dañoo bàyyi farata bi leen yàlla sant def ay yeneen yu leen yàlla santul beneen misaal da ngay gis ñoo xam ne dañuy romb jàkka duñ julli yàpp ay njaga njaay conteneeru doomu aadama jëme leen ci àll bi di leen def loolu leneen ay ziyaar ak ay kan xamul ne dañuy jaamu ji yàlla oto boo ci gis ñu ngi takk ay drapeau takk ay haut-parleur muy yuuxu soo waxee ñu ne ñun dañuy jaamu ji yàlla ñu romb li leen yàlla sant ci farata yi defuñu ko. beneen da ngay gis guddi xaw ma ndax yegg si na fii de ay rajo yu ñu takk ay nit di yuuxu di tëgg di fecc laa ilaha illallah ba bët set bàyyi xiyaamul layli taxaw di fecc ba bët set. yàlla li mu gën a bëgg ci ñun mooy buñ koy jaamu nañ ko jaamoo li mu fa li mu farataal ci ñun li mu ñu sant olof yi nee nañ bala ngay laax jaay laax lekk balaa ngay dem di def leneen loo xam ne santuñu la ko doo ci am tiyaaba te yooyu may wax ni kenn du ci am tiyaaba gis nga yàlla bu la santul dara yàlla am fulla wallaay buñ jàngoon alxuraan ñu dégg ko dañu am ne yàlla kenn ëpp ko fulla ana bàyyi Ibrahima ana Ibrahima lan la ci yàlla Ibrahima lan la ci yàlla wattaxaza allahu Ibrahim xalil ana bàyyam ma nga safara nit dina jàpp sa xarit di dóor bàyyam kan ci ñun fii moo koy def sa xarit boo xam ne da ngaa déclaré ba ñëpp ne sa xarit la nga jàpp papaam di ko di ko rof ay kurpeñ ku koy def fii ci ñun ñu ko dañ la xelu woo suñu benn goro ndeysaan papaam dafa bañoon xaj papa ji jékki-jékki rek gis xaj bi ci kër gi mu ne joxal leen ma xaj bi mu lekk ñu ne ko déet mu ne xaju diw la te diw sama xarit la su ma bëggee nit kon foog ma bëgg xajam joxal leen ma xaj bi mu lekk ndeysaan waaw naka la yàlla di wax Ibrahima sama xarit la jël baayam dugal safara beneen nu xam ngeen ko xam ngeen nabiyullaay nu lan la seyxul mursalin ulul azmi min ar-rusul ana jabaram ak doomam mi ngi safara xam ngeen yonent yàlla luut ana jabaram mi ngi safara firawna xam ngeen ko tëngéej gis ngeen ko fi tudd firawna dama leen laaj lu tax firawna amul turandoo lu tax firawna amul turandoo c'est parce que dafa bon waaye jabaram a ngay àjjana kon mbir yi fu mu nekk ay yonent seen jabar nekk safara ak seen i baay kii kàccoor bu toll ne firawna jabaram nekk àjjana kon mbir mi fan la nekk oustaz fu mu nekk war nañu laaj ñii ay yonent lañ takk ay garaat yu ngand ulul azmi min ar-rusul ibrahim Moussa ah ibrahim Moussa Nuh yàlla jël seeni njaboot dugal safara firawna gën a yées ci ñëpp yàlla jël jabaram dugal aljanna kon mbir yi fan la nekk kon yàlla xamul garaat yàlla xamul ndomba tànk yàlla xamul yonent yàlla xamul waliyu yàlla xamul muqaddim muqaddam yàlla xamul cheikh xam nga yàlla lu mu xam ku ko topp ku ko topp soo ko toppee ak ku la mën a jur yàlla daal lay teral yàlla boole la ca ña muy teral waaye boo bokkoon ak yonent bi soo lànkee bañ a topp yàlla yàlla duma la yonent bi alayhi salaam wax na ko fatima de yaa fatimatu bintu muhammadin sali min maali ma sit fa inni laa ugni anki min allahi shay fatima man mi maay sa baay maay muhammad maa gën ci mbindee fii bu ñu suulee nit ñi yowmal xiyaam maay njëkk a dekki maay njëkk a ñëw ci buntu àjjana fëgg ridwaan ne kokkan la ma ne ko muhammad mu ne yow lañ ma waxoon balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare waaye Fatima boo jaamul yàlla ëllëg mënuma laa musal ci yàlla tabaraka wa taala laa ugni anki min allahi shay sama alal nag loolu laaj ma jox la waaye boo jaamul yàlla ëllëg mënaluma la dara kon mbir yi leer na kon yàlla li mu gën a bëgg ci yow mooy boo koy topp nga topp ko ci li mu farataal ci yow ci ay naafila mu ne nit du deñ doomu aadama du deñ di jege yàlla ginnaaw ba mu defee farata yi ko yàlla sant lu mel ne woor weeru koor ba mu jeex teg ci sittas woor na ba mu jeex julli na loolu la ko yàlla sant léegi nag tàmm na loolu ba léegi li ko yàlla santoon yemu ci mu ngi koy yokk bu ñëwee di julli si fajar day teel a ñëw wala day naafi la këram ba mu dégg salaatu xayru minan nawmi mu julli ñaar raaka doog a dugg ci jàkka ji 4 heures du matin lay jóg di naafi la su tisbaar jotee day teel a ñëw ndeysaan dugg ci jàkka ji naafi la ba ñu nodd mu julli farata naafi la ñibbi ab saxaaba dafa feebar nekk ci sukuraat njaboot gi jooy mu ne leen doom yi lu ngeen di jooy ñu ne ko bàyyi dañoo ragal ne da ngay faatu mu ne leen jarul jooy ma azzana al muazzinu arbaina sana illa wa ana fi saffi l awal 40 ans 40 ans saa yu noddukat bi noddee day fekk maa ngi ci sàppe premier bi toog 40 ans musuma manqué 40 ans saa yu noddukat bi noddee maa ngi première sàppe toog ñun kan moo ko fi assuré 5 jours ba pare ñu bëgg a buuxanteeg ñee buntu aljanna ah ñu bëgg a buuxanteeg ñee buntu aljanna kii ne man 40 ans imaam musuñoo nodd la wax de waxul imaam de ma azzanal mu azzinu noddukat la wax musta nodd lu dul maa ngi sàppe premier 40 ans ñun suñu julli julli fajar laa yow jël ñaata minute lañ koy def tontu leen julli fajar ñaata minute la cinq minutes minimum tisbaar ima cinq minutes boobu sax mooy imam bu imam bu xaw a dëgër tuuti quoi tisbaar cinq minutes ah ok takusaan muy quinze timis muy vingt gee ah sept match de football ñaata minute la match de football 90 minutes ki nekk ci terrain bi ak yow mi toog di seetaan li nga jox yàlla ak li nga jox football bi lu ëpp lamb ñaata minute nga fay def bu Balla Gaye di bëre Modou Lo ban heure la ñuy dem stade 11h ci suba ba ban heure yow fee sànq ci jaamu yàlla bi 20 20 minutes nga jox yàlla ci làmb ji loo jox yàlla ci football bi loo jox yàlla bàyyi loolu léegi sa liggéey bi ngay liggéey sa bureau ñaata minutes nga jox yàlla sa bopp boobu dafa sori ndogu gi ndogu bi nga toog tiim ñaata minutes nga jox sa bopp reer bi waaw sëñ bi ba pare ñu ne nañ am taqwa est-ce que ñun ñu ngi xool li ñuy def yow sa dund gi yëpp yàlla 20 minutes nga ko jox ñaata Sénégal ñaata heure la ñuy lire soleil journal ñaata heure la ñuy seetaan télé est-ce que toog nga du toll noonu heure di jàng alxuraan ak téere bi nga xam ne ku ko mus a jot rek téere bi tax na yow nga gën ci lépp keroog ba yàlla jëlee téere bi ne jibril am keroog la jibril nekk ngën gi malaayika wala keroog ba jibril ne cas téere bi indil ko muhammad keroog la muhammad nekk gën gi mbindeef wala ngën gi nit nit nit keroog ba ñu wàccee téere ba ca màkka la màkka nekk ngën gi keroog bañ ko wàccee ci guddi gi laylatul qadr keroog la nekk ngën gi keroog bañ ko wàccee ci weeru koor keroog la nekk ngën gi barki démb rek xale bi jël champion du monde bi xoolal tey xéewal yëpp la am lépp ubbeeku na c'est parce que téere bi la téere bi la parce que kàddu yàlla la yow tey kàddu yàlla boobu doo xëy sax liir ko ñu bëri sax ci ñun fii toog dañuy wax rek mais am na ci ñoo xam ne amuñu ay kaamil seen kër waaw waaw yow yow sa bopp nga wax am na ci ñun ñoo xam ne fii wallahi suñ doon contrôler léegi jëli xaw ma police lan police yooyu di dugg ci biir ñii xool kaamil danañ tas bagage bi armoire yeeg yëpp këpp valise sa waay an sa kaamil non fii laa ko tegoon de est-ce que xale yi jëluñu ko sax fekk amul kaamil allahu akbar léegi nag ñun yàlla lim ñu sant duñ ko def ba pare ñu ne nanu ragal yàlla mais mbokk yi nu muy demee ah du dem sunu borom subhanahu wa taala ci ñaareelu tomb ginnaaw mahabbatullah mahabbatul malaika mahabbatun nas mu ne al alxibs li abna ba adal wafaat gis nga nit bu ragalee yàlla boo amee ay njaboot sax yàlla dina leen garder àdduna garder leen àllaaxira sa ragal yàlla mooy protéger sa njaboot soo ragalee yàlla lan la ñu yàlla wax wal yaxsha allazina law taraku min xalfihim zurriyatan diaaf fa axaafu alayhim falyattaqu llaha walyaqulu qawlan sadida ala mu ne ñi ragal yàlla ñi nga xam ne dañoo dégg nit faatu na ñuy ñëw di defar ginnaawam ci wàllu miraas yàlla mu ne ña fa teew nañu ragal yàlla ci njaboot gi waa ji bàyyi waaye gis nga waa ji bu ragalee yàlla yàlla mooy poñe xolu waa ji njabootam kenn du leen tooñ beneen bu gën a leer ci histoire xudar ak Moussa Moussa dafa signé woon ak Xudar pacte lu may def dooma laaj mu ne waaw ñu dugg gaal gi mu bënd ko mu ne ko lii nag mu ne ko waxoon naa la lu ma def bul ma laaj ñu wàcc mu jël benn xale rey ko mu ne ko waaw mu ne ko waxoon naa la bul ma laaj ñu dugg dëkk ñu sàkku ci ñooñu lekk ak naan ñooñu bañ xudar simmee ku daan ne Moussa jàppale ma ma defar miir bi loolu rek laa soxla foofu rek laa soxla xam ngeen lan moo tax yàlla doon defarlu xudar ak Moussa miir boobu ah sunu borom subhanahu wa taala moo nu ko nettali mu ne fa ammal jidaar fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuhuma salihan fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma rahmatan min rabbik lu ko waral puisque seen ndey ak seen baay dañoo ragaloon yàlla ñu jël alal ji ñu suul ko ci suufu miir bi ñu faatu way juru xale yi nekkatuñu fi yàlla di leen gardeel alal ji di garde xale yi di garde alal ji lu tax parce que seen ndey ak seen baay dañoo ragaloon yàlla gis nga boo ragalee yàlla sa njaboot sax ci ginnaaw yàlla dina ci teg loxo mbokk yi inna allaha la yaxfaz bi rajuli salih waladahu wa walada waladahu wa qaryatahu allati huwa fiha gis nga nit bu ragalee yàlla yàlla dina ko aar aar njabootam aar doomu doomam waaye dëkk bi mu dëkk sax yàlla dafay aar dëkk bi su nit ragalee yàlla waaw bu nit bu nit ñi ragalulee yàlla nag bu ñëpp yemee soo waxee ñu ne tey ñëpp a yem kon naka la nu yàlla di aaree ñetteel mooy ilmu naafi xam-xam buy jëriñ min jaza min jarai taqwa wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim gis nga ku bëgg am xam-xam buy jëriñaate da ngay ragal yàlla léegi nag yenn saa yi boo nee xam-xam nit ñi tënk ko ci jàng alxuraan ak jàng hadis maçon bi sax su bëggee li muy tabax baax na ragal yàlla menuisier bi bu bëggee li muy defar baax na ragal yàlla tailleur bi bu bëggee li muy ñaw am barke na ragal yàlla xam-xam bu la yàlla dénk nga ciy liggéey ragal ci yàlla benn waay doon day gas foos mu ñëw benn kër di gas foos bi borom kër gi ne ko kenn du fi nekk caabi ji fii laa koy suul soo xëy see nga ubbi nga gas foos bi waaye dama bëgg nga gasal ma ko ba ndox mi yëpp dañ soo mënee dindi tuuti ci li ci pat bi nga dindi ko nga dindi ko mu ne ñaata laa lay fay waa ji daal di wax waa ji daal di génn ci poosam ne ko am mu ne ko kan moo may garde mu ne ko yàlla mu ne ko yàlla moo may garde mu ne waaw waa ji xëy suba di liggéey si natt bi mu njëkk am mooy daa gas lu toll ne teen jël foos bi yëpp yëpp laa wax de ndox meeg pat beeg ba suuf si xonq si di génn bi waa ji wàccee ubbi kubéeru foos bi ne ko wow yow de tuuti nga luqati fondement bi lu tax sonn nga de mu ne ko ah yow démb nga may fay man la kan moo may garde nga ni ma yàlla yow kay yaa ma rey nga defal man yàlla dina taxaw fii di ma xool may taf tafee affaire bi voilà loolu mooy mbir mi mooy yow da ngay am confiance ne yàlla la nga liggéey ko liggéey bu baax mais tey lu am taf taf dóor mu daanu mais gars yi ay saa yi business la nañ jàll kii daf ñuy tardel tey loolu la dëkk bi du dem ñëpp di dóor mart tout le monde sëriñ yeeg imaam yeeg oustaz yeeg ñi jàng ak tout le monde ñëpp nekk ay dóorkatu mart fu jëm benn waay lañ ma envoyé soom ci whatsapp mu woote téléphone kër waa ji jël salaamaaleykum mu ne yow day sa mbir baax na damaa nekkoon ci xalwa gis sa numéro waxal alhamdulilahi rabil alamin waa ji ne alhamdulilahi rabil alamin mu ne ko yow war ngaa tabax juróom-ñaari jàkk war ngaa yóbbu ñaar fukki nit màkk war ngaa di ko wax yoo xam ne ubbil na ko àdduna ak àllaaxira mu ne waaye lii yëpp nag war nga ko def waaye du mun a nekk lu tax mu ne foog nga génne sarax foog nga génne 7 kilo guro foog nga génne ko soo ko saraxee ba pare rek affaire yi day ñëw waa ji ne ko xam nga kilo guro lu muy jar mu ne ah du 1200 multiplier leen ko ñaata la 7 kilo gros kilo 1000 1200 ñaata la ah waaw mu ne ko léegi nag da nga koy jël da ngay jënd guro gi xoolal li- xoolal xoolal pièce bi fii la ñëwee da ngay jël guro gi nga yóbbu ko ci imam bu tudd Ousseynou nekk nitu guddi waa ji ne ko imam bu tudd Ousseynou de xam naa ko waaye imam bu nekk nitu guddi mooy lan mu ne ko imaamu dëmm ah waa ji ne ko ah man nag mënumaa xàmmee imaamu dëmm mu ne kon wari ma xaalis bi man xam naa imaamu dëmm gis nga gis nga gis nga njublange fi mu nekk comme yow mënoo xam imaamu dëmm man xam naa imaamu dëmm wari ma xaalis bi ma ma ma saraxeel la ko léegi kooku lan la bëgg lekk 9500 jàmbur loolu la bëgg kese mais gis nga yoon bu mu jaar fu ñu jëm imaamu dëmm nu ñuy xàmmee imaamu dëmm subhanallah elmu naafi xam-xam buy jëriñi mooy ragal leen yàlla wattaqullah wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla jàngal leen ku ragal yàlla rek yàlla may la xam-xam waaw ku ragal yàlla yàlla moo lay may xam-xam bu set bu sell boo xam ne daf lay jural fooy teg sa tànk sunu borom subhanahu wa taala mu ne fa min asbaabi nuqsaanil ilmi borom xam-xam yi ñu ne fa min asbaabi nuqsaanil ilmi almaasi fa innaha tasud anil ilmi bokk na ci li tax tey nit ñi seeni xam-xam duñ ko jëriñoo mooy bàkkaar yu bëri menuisier bi du jëriñoo li mokkal mukk c'est parce que day war di triander ñi muy liggéeyal am na xam-xam de waaye du ko jëriñoo tailleur bi kazalik maçon bi kazalik enseignant bi ci classe bi kazalik oustaz bi fee kazalik ku mu mën a doon bu fekkente ne xam-xam bi la yàlla may da nga ci boole mooy yàlla doo ko jëriñoo ndax xam-xam mayu yàlla la mayu yàlla du ànd ak ay bakkaar benn waay ñëw na ci borom xam-xam di ko di diis ne ko man mënatumaa mokkal sa kawtu ila waqi su a xifzi fa arsadani ila tarkil maasi wa axbarani bi anna al ilma nuurun fa nuurullahi la yuhda li aasin ba ñëw ci borom xam-xam bi mu ne ko man de mënuma mënatuma mokkal mu ne mu daan may orienté ne ma bàyyil mooy yàlla dootoo mokkal alxuraan bi dootoo ko mokkal dara bind dootoo ko mokkal ndax sa bët yi day xool jigéen sa nopp yi day déglu sa loxo yi day laal sa tànk yi day dem sa gémmiñ gi day wax bët yuy tegu ci jigéen bëgg a tegu ci alxuraan du mokk jamais du mokk nopp yi déglu musique gémmiñ yuy wax yu bon loxo yi kazaalik gémmiñ guy lekk riba tànk yuy dox jëm ci lu bon waa jooju xam-xam bu mu am du ko jëriñu day sonal boppam rek ñeenteel moo mooy ay albushra fi lxayaati dunya sawaun bi ruya alsaliha aw bi mahabati nnas wa sana alayhi qala taala alladina amanu wa kanu yattaqun lahum albushra fi lhayati dunya wa fi laxira mbokk yi ñeenteel bi ñuy jural ragal yàlla mooy ku am ragal yàlla yàlla lay bégal aduna bégal la alaxira yàlla da lay bégal aduna bégal la alaxira benn nga romb nit ñi ndeysaan ñi lay gërëm ak di la ñaanal di la tagg ci la bokk wala ñu bëgg la di la ñaanal yàlla wala nga gént gént gu neex gu la yàlla won gént gu neex gu la yàlla di bégal di la won na yow da ngaa texe wala yow sa mbir baax na ni nit di géntee mbugal di këpp ci kawam xam ngeen Malik ibnu Dinar yaa yaa ngi jam xissa bi mais mënees na kaa nettali ndax doomu aadama jëriñu ci lu tax Malik ibnu Dinar xam ngeen ko takk der la woon gendarme wala policier wala militaire wala waxal leen en tout cas da doon takk der waaye nag saay-saay la woon daawul xippi xool nit ndax sàngara Malik mësta xëy te wàcc wàcc te sàngara duggul ci gémmiñam ndax àndandoo yu bon yu ko ci dugal mu dem ba àndandoo yu bon yooyu mu nekk seen chef gën leen a bon yàlla natt ko mu yéex a takk soxna mu am soxna mu am doom bu jigéen mu bëgg doom ji ndax benn doom la su xëyee xelam ci doom ji lay nekk su wàccee mu ngeeg doom ji doom ji sax buy nelaw ci dënn bi la koy tëral day tëdd jaaxaan teg doom ji ci dënn bi ba xale bi di commencé màgg di raam bay dox ba su wàccatee xale bi daw ci buntu kër gi gàttandu ko benn bis mu màndi mu wàcc xale bi daw gàttandu ko mu jël xale bi taf ci dënn bi sànni ko ba ci kaw kapte ko fóon ko sànni ko kapte ko fóon sànni ko rek ne da koy jàpp rek xale bi daal di mbas daal di daanu ci dër bi dee Malik am problème mu ne waaw man lu tax yàlla di rey sama doom baax na mu dem ginnaaw ba gaa yi suulee doom ji def lépp guddi gi mu dem màndi màndi boo xam ne mënatul taxaw mu ñëw tëdd mu gént yowmal xiyaam mu gént benn jaan joo xam ne jaan ji benn ŋaam bi mu ngi ci suuf beneen ŋaam bi mu ngi ci kaw asamaan jaan ji topp ko di ko dàq bëñ yi foo ko natt wees na ko réyaayu jaan bi kenn mënu ko takk jaan ji topp ko di ko dàq mu daw ñëw fekk benn góor gu màgget gu yiw toog ci benn sijaada mu làqatu ci ginnaaw góor yi góor gi ne ko mënuma laa musal jógal ndax man dama néew doole jógal mu ne góor gi nu may def góor gi ne ko jaaral nii yoon wi nga daw mu daw jaan ji topp ko mu seen ay montagne mu jubal ci montagne yi ne da ciy nëbb ba mu jegee montagne yi ndeke foofu jahannama la mu def demi tour lépp jaan jaan ko topp te daw yu metti lay daw ndax jaan ji day ñëw di ko bëgg a kapte di ko bëgg a lekk mu dawaat ci góor gi ndeysaan ne ko dimbali ma góor gi ne ko munuma la aw ma doole munuma la mu la munuma la musal mu ne nu may def góor gi ne ko jéemal côté bii mu jëm ci benn côté mu dégg ay baat ba mu ñëwee ba jib baat yi rek mu gis ndeysaan ñu ubbi ay rideau ay rideau ñu ubbi rideau yooyu nga xam ne dañuy jàpp rek xëcc rideau yi ubbeeku bi ñu ubbee rideau yi rek mu gis ay xale ci biir xale yi rek mu gis doomam doomam ji ñëw rek ne jaan ji acca jaan ji daal di dëpp rek mu toog ci suuf à genoux mu jël doom ji taf ci dënd bi mu ne ko doom fi fan la mu ne ko fi àjjana la mu ne xale yi nag mu ne ñii ñooy xale yi faatu mesure ñu baay Ibrahima moo leen di yar di leen jàngal alquran mu ne waaw doom jaan ji ma topp nag mu ne ko bàyyi say bàkkaar yu bëri la sa bàkkaar yu bëri ba soppeeku nekk jaan ji topp la mu ne waaw góor gi màgget gi ma romb fee nag mu ne ko sa jëf ju baax la amul doole moo tax mënu laa mënu laa muusal doom ji ne ko bàyyi waaw yow alam yaani lillazina amanu an taxsha an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alxaq rek malik ibnu dinar ci nelaw bi mu daal di yeewu bi mu yeewu mu dégg ñuy nodd asalaatu xayru min an nawmi te musta dem jàkk musul dem jàkk mais gént gi tiital na ko def na ci moom loo xam ne mënatul tëddaat foog mu dem jàkk tey mu sangu jàpp jëm jàkka ja mu ñëw dugg ci jàkka ji toog imam bi daal di ñëw dem minbar ñu kàbbar imam bi jàng fataha rek jël aaya bi alam yaani lillazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alhaq rek mu yuuxu ci biir jàkka ji yuuxu yu métti yuuxu yu métti yuuxu jooy daanu ci suuf ba ñu sëlmalee imam bi laaj ko luy sa mbir mu daal di koy nettali gis nga kooku nan la ko yàlla baaxalee mooy gént gi mu gént pour yàlla baaxalaat ko tey boo jàngee histoire islam nga gis Malik ibnu Dinar nga xam mooy kan kon bushra la yàlla di def bégal la yow mi nga xam ne da ngaa am ragal yàlla yow mi nga xam ne ragal yàlla intéressé na la jëlee nañ ci hadis abi zarin alghafari annahu qaal ya rasul allah arrajulu yamalu lamala fa yaxmaduhu nnas alayhi wa yathnuuna alayhi bih فقال رسول صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن Abu Zar nee na yonent kenn ci ñun day jëf ay jëf su génnee nit ñi di ko gërëm ci jëf yooyu wala di ko ko taggee yonent bi ne ko lool de du dara xéewal la goo xam ne yàlla moo ko gaawee jaam bi ndax ëllëg war koo fay xéewal la bu yàlla baaxe jaam bi ndax ëllëg daf ko war a fay juróomeelu tomb wa min samaratihi taysir wa tasxiil umur al insaan gis nga ku ragal yàlla yàlla day yombal say mbir waaw wa man yattaqillah yajal lahu maxraj gis nga yonent yàlla Moussa keroog bu mu génnee jóge Madiyan di ñibbi Égypte mu ànd ak ay njabootam ñu nekk ci lëndëm nekk ci réer nekk ci ngelaw mu réer xamatul yoon bi ñu dox ba sonn mu daal di seen safara mu ne mbokkam yi imkusu fa inni anastu naaran laalli aati ah mu ngoog toog leen fii reste leen seen naa benn safara toog leen fii ma dem laaj ka nekk ci safara si walla su fekkee nit nekku fa ma jël benn gilet ma jël benn gilet mooy benn matt buy tàkk ma ñëw taalal leen fi comme dafa sedd ngeen jaaru ci aaya wa man yattaqillaa yajal lahu maxraj lañ nekk ku ragal yàlla boo amee problème yàlla intervenir Moussa ba mu jibee safara sa lan la dégg kàddu guy wax ak moom naan ko inni ana allah maay yàlla summi say daal faxla an alayk innaka bil waadi al muqaddasi tuwa ndax jafe-jafe yi mu nekkoon yàlla génne na ko ci wala génnewu ko ci laaj la génne na ko ci ibrahim bañ ko yeewee ba mu ne ngodd ñu koy dugal ci safara si yàlla mënoon na taw wala wala mu ne géej gi acca demal wala mu ne dex gi demal waaye yàlla dina safara si tàkkal mais seddal ci ibrahim nekkal jàmm wa qulna ya naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim kon gis ngeen ku ragal yàlla problème boo am yàlla génn la ci mais est ce que yow ragal nga yàlla loolu mooy wax ji amul ku musa ragal yàlla tàllal yàlla ay loxo te yàlla wuyuwu ko ñooñu ñi ay yonante lañ firawna bi mu dàqee Moussa ba mu sës ci géej gi nitu Moussa yi mënuñoo dem bu ñu demee lab bu ñu gestoo firawna rey leen ñi amul iman amuñu pas-pas amuñu ragal yàlla naan ko inna la mudrakun danañ ñu dab lan la Moussa wax kalla inna ma'i rabbi yàllaa ngi ànd ak man inna ma'i rabbi ku ragal yàlla problème boo am yàlla génne na ci am na benn commerçant bu mag jóge saam jëm yaman ak gëléemam bi mu demee ba ci digg àll bi mu dajeeg reykatu nit waa ji nga xam ne moom foofu la nekk rek di reyaate foofu ku mu fa jàpp dalay rey waa ji ne ko foo jëm mu ne ko yaman mu ne waa nga jëm yaman di jaar yoon bi mu ne ah man kat at yi yëpp fii laay jaar mu ne ko fii dafa yéex yoon bi moo gën a gaaw nañ dem sax ndax ma wettali la waa ji ne ko nañ dem ndeke détourné na ko yoon bi ñu dox dox dox dox dox dox dox li ma daan dox di yegg tey dox naa double bi te yow da nga ne moon yoon bi gën a gàtt mu ne ko nañ dem rek yegg nañ ñu dox tuuti rek waa ji commencé gis ay yaxu fas yu dee ak ay yaxu gëléem waa ji commencé tiit ñu jékki-jékki waa ji gis ay bopp nit ak ay tànk ak ay loxo waa ji ne ko yow fi nga ma jaaral nag mu ne ko fi ma la jaaral fa laa jaaral yax yi ngay seen ay nit lañ woon foofu laa la jaaral mu ne ko kon loo fas yéene mu ne ko rey la mu ne ko tey ngaa jël gëléem gi ak bagage yi mu sëf nga bàyyi ma ma ñibbi mu ne ko non non loolu maa ko moom léegi loolu kay yow mooma too ko lu may jël loolu man maa ko moom kay ba pare yow loolu luñ ci waxati te koy waxal beneen doléance mu ne ko kon may ma ma julli ñaari ràkk après nga rey ma mu ne waaw waaye daal di julli première ràkk deuxième mu daal di sujjuut mu ne yaa waduud yaa waduud yaa waduud yaa dhil arshil majid yaa faalan lima yurid as'aluka bi wajhika alladhi لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تغيثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني bi waa ji di siggi ci sujjóot bi ñu dégg benn kàddu ne bu ko rey mu ne waaw agresseur bi ne waaw kan moo naan fii bu ko rey mu ne waay ma koy rey mu dégg baat bi gën a jege ne eh yow la ñuy waxal bu ko rey mu ne waaw rek benn waay ne ko bu ko rey rek bitti ko loxo mu dali fële dee waa ji ñëw fekk ki doon julli fi mu sujjóot mu yëkkati ko mu ne ko gis nga sa ñaan gi bi nga ko ñaanee malaaka yi nekk kaw asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla di ñaan kenn ku ci nekk pour yàlla yónni ko mu intervenir pour sauver la mu ne yàlla daal di ma ne yow la mu ne bi ma yàlla ne yow la ma tiit balaa ma yegg si waa ji di la rey parce que man la yàlla tànn moo tax première bu ko rey bi ci mala ul aala laa nekk ne bu ko rey mu ne ko deuxième bu ko rey bi maa ngi ci septième asamaan bi troisième bi laa taxaw fii yàlla nee na am man yujibul mutatarr isa daa wa yaksifu suu yàlla nee na kan mooy am problème woo yàlla te yàlla du intervenir ku am problème boo woowee yàlla yàlla ñëw mais ñun bu ñu amee problème ku ñuy woo duñu woo yàlla loolu mooy problème mu Sénégal même sax ku feebar balaa ñu koy yóbbu ci yàlla ñu dem ci xàmb yi ba affaire yi jeex ñu ne dem leen kër docteur ñu dem ba kër docteur jeex ñu ne yàllaa ci des wala jonde ko allah heddi heen min nawi mo nokkuuji fof min mbaɗi kala komin mbawno min mbawa hen haydara tukulóor yi loolu la ñuy wax bu dee olof yi ñu ne yóbbu nañ ko fépp fu ñu xam hôpital yëpp yóbbu nañ ko lépp lu ñu amoon def nañ ko ci mënatuñ ci dara léegi yàllaa ci des léegi la ci yàlla des démb kon kan la woon kon yàlla nekk ci woon moo tax du dem ne yàlla nekk ci lépp yàlla nay jëkk di mujj yàlla rek la du keneen mais sénégalais yi ñooy am problème kenn du dem ci yàlla waaw gàllaaju takk ay weñ ay xarfa fuufa dem ci xàmb yi sangu naan takk da nga dégg yow doo takk yéen du ngeen takk yéen da ngeen di xaru rek gis nga fii ku fi gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf nga dégg loolu la gars yi di wax waaw ku fi gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf tey la ñuy maye moo tax du dem Ibrahima keroog bañ koy duggee ci safara si ban gàllaaj la takkoon Moussa ba muy traversé géej gi ban gàllaaj la takkoon Youssouf biñ koy sànni ci biir teen bi ban gàllaaj la takkoon waaw foofu sax dafa sori bi nga nekkee ci sa biiru yaay neuf mois ban gàllaaj nga takk te foofa gën a dangereux nag ndax lu tax foofa gën a dangereux mooy buñ bi nga juddoo ñëw ndeysaan suñu benn mbokk ci mbokk yi. soxnaam dafa am ñetti doom barki démb ñett seex yi góor démb kenn ki wàññeeku tey tamit ci suba woo na ma fekk maa ngi ñëw fii mu ne ma keneen ki tamit wàññeeku na xoolal ñetti doom yu góor ci biir doomu aadama yi dañoo yab yàlla rek waaye nit fi mu jaar juddu bi mu génnee rek waroon na tax ñu gëm yàlla li lay wan ne yàlla kese la bi mu génnee matul dañ ko faroon dellawaat ñu ne ba mu mat mu ñëw booy togg ataaya warga bi ñorul nga xiim ñu ne yow ñorul waay béy yow looy def nii da nga daan indi leen ma toggaat ko ci biir baraada bi nga koy sottaat wala da ngay këpp baraada bi jëndiwaat warga dama laajte da nga koy sottiwaat ci biir baraada bi këppiwoo warga bi de bu doon ceeb la bu muy togg añ nga yekk añ bi ñu ne ñor da ngay këpp jëndiwaat nooy def ngay sottiwaat lu tax doom ji judd matut ñu ne matut delloowuñ ko foofu benn yoon la yàlla mu ne summa sabila yassarahu man yàlla maa yombal yoon bi fii rek ngay jaar maa ko yombal maa ko ubbi xam nga ni nit foofu mu jaar génn soo ko xoolee xam nga ne dëgg-dëgg fii nit xeju fi waaye kan la waxuma benn nit de waaye xoolal ñaar waaye xoolal ñett yàlla jaar loo leen foofu génne leen kon yàlla la li lay wan ne yàlla la mooy ndaw si bi mu tollee ci mat mu daw dem hôpital waa kër gi mënuñ ci dara balaa muy dem hôpital waa kër gi mën nañ ci dara kan moo fi am soxna ci biir jàkka ji ku fi am soxna yëkkati sa loxo bi sa soxna tollee ci mat nga nekk ak moom ci biir néeg bi yéen ñaar guddi deux heures du matin noo def ndax da ngaa ubbi biir bi génne doom ji noo def da nga ne xaar xaar mooy taxi xaaral nga daw deux heures du matin nga génn yow kese nga ut oto kon xam nga ne mënoo ci dara biñ ko yóbbee maternité waa maternité dañ ne yii góor gi indi nga ko de mais kii matagut jotagut kon du ñoom delloo ko ba mu mat nga delloo ko ñëwaat ñu ne oh ba tey de waaye na toog nag kon du ñoom yàlla nee na maay toog ba mu neex ma ba ñëpp jaaxle ah bàyyi toog fee di teeru gan yaay toog fee naan yaa latif yàlla ñëwal bul yónnee docteur yi sol seeni gants kenn mënu ci dara yàlla joxoñ liir bi ci biir bi ne ko uxruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil maabud ubbi yoon bi yàlla mu ne summa sabila yassarahu man yàlla ma yombal yoon bi liir bi daal di juddu daal di génn commencé jooy kon yàlla la du ñun nañ ni delloo mbiri yàlla affaire bi xam nañ fan la de mais dañoo dëgër bopp gis nga sénégalais yi ni ñu bañee liggéey di di taf tafee xaalis taf taf koo wax mu ne xaalis suñu sëriñ yi sax am na ñu ko wax ci seeni kaset xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti waaw am na sunu kilifa diine yoo xam ne bu ngeen delloo ci arsif yi di ngeen fa dégg ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti léegi nag àjjana tamit gars yi dañ ko bëgg a lijjanti kenn du ko jaamu waaye nag kooku yàllaa fa nekk àjjana kenn du ko lijjanti dañ koy jaamu nii ngay def nii pour nga am àjjana waaw ku jaamuwul yàlla du dugg àjjana ak koo mën a àndal ak koo mën a gëm ak koo mën a bëgg soo jaamuwul yàlla perte nga bu leen fàtte bu leen fàtte tey li tax lépp sunu problème sunuy mbir am problème mooy dañuy fàtte xamu leen Abdoulaye bun Ubay bun Salul xam ngeen ko de du xam ngeen ko yaa ngeen ko bi mu deewee ku ko sang Muhammad ah xanaa kay yonent bu sangee nit war naa texe fii benn waay day dee rek benn waxuma sax benn kilifa diine moo ko sang kilifa gi day ñëw rek jullee rek ñu ne allah nga gis gaa yi di yuuxu kii texe na wala li ma wax bu dee gisuleen ko ngeen ne gisuñu ko benn kilifa diine laa day ñëw ci dëju kenn benn musicien wala benn mbër wala benn rappeur wala benn simbkat wala benn kankurankat mu dee ñu suul ko sëriñ bi ñëw fekkee ju suul gi rek ñu ne moo lu ngeen di ñaan wàcce leen seen loxo kii kii koy xam ngeen ne kenn du ko laaj ndeysaan ndeysaan muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang nit sang ak loxoom sang ko ak mantoom bi mu daan jiitee mantoom bi mu daan jiitee la ko sàngee jullee ko dem ba ci armeel yi ñu gas ba mu xóot yonent bi dugg ñu jox ko waa ji mu dugal mu delloo ci suuf si mu bëgg a ñaan yàlla mu ne ko boo ñaanee duma ko baal astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yeggali leen lan yaghfir allahu lahum duma leen baal mukk soo demee suratu tawba aaya ba lan la wax walaw istaghfarta lahum sabiina marra falan yakun illahu li yaghfira lahum te sax maa ngi lay yëgal yow Muhammad na nga def attention de ku mel ni bu deewatee wala taqum ala qabri bu taxawati ci bàmmeel bi attention yàlla di dànkaafu yëf Seydina Muhammad fii Sénégal ñu ne ndeysaan waa ji caam la sant rek papaam caam la sant mooy kilifa diine gi rek àjjana la jëm lu ko neex def dañ koy woy sax ci guddi di tëgg ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj dëgg di tëgg ba bët set di tëgg ba bët set kenn du jaamu yàlla de loolu yomb na de ku àndal ki ñu ànd rek di tëgg rigit rigit ba bët set rek jug àjjana waaye sëñ bi seetaat leen suñu bopp nañ leen bàyyi caaxaan addunya daaru amal wal axira daaru sawaab àdduna këru liggéey la alaaxira ëllëg fa la ñuy fayee kon nit su ragalee yàlla yàlla yombal ay mbiram yépp def ci tawfiq ndax yàlla ne ku ragal yàlla man yàlla soo amee jafe-jafe ma intervenir bal sax yàlla ne fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra képp koo xam ne da ngaa joxe ragal yàlla nga dëggal ëllëg aljanna am na yàlla nee na danaa la yombalal mbir yi ba mu yomb juróom-benneel wa min samaratiha alxuruj min almazaq wa xusulu rizq wasia képp koo xam ne da ngaa am ragal yàlla yàlla dina la génne ci xat-xat waaye defal la wërsëg yàlla dina def sa mbir yëpp yaatu yàlla dina la wërsëgale foo ko foogul woon wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraj wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib juróom-ñaareel wa min samaratiha adamu diyaa il ajr fi dunia wal axira ku ragal yàlla lépp loo def doo ko perte doo perte innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudi ajra al muxsinin yàlla nee na li wër tey mbir képp ku ragal yàlla xam ngeen lan mooy ragal yàlla mooy moytandiku moytu al ittiqa mooy moytu ni ngay duggee ci àll nga sol mbubb mu rëy ngay moytu xaaxaam yi wala ngay moytu dëg yi ci dàll yi nga nekk ci loolu nekk ci loolu ba génn ci àll bi benn xaaxaam takku la benn dëgg jamul sa sa sa sa dàll loolu mooy ragal yàlla ni nga nekkee ci àdduna noonu ngay moytoo bàkkaar yu ndaw yi mooy dëgg yi bàkkaar mooy xaaxaam yi yu ndaw yi bàkkaar yu ngand yi mooy dëgg yi ñaar yëpp da nga koy moytandiku da ngay moytandiku xaaxaam bi moytandiku dëgg yi noonu la ñuy moytandikoo fi mu nekk nii ni ñuy moytandikoo loolu pour sunuy ay mbiru àdduna yére dàll tànk bàkkaar moo gën a yey ci ñu moytandiku ndax bàkkaar boo ko amee ba mu fees ci yow pour yàlla baal ko baal la foog yàlla teg la natt feebar jafe-jafe ay problème pour yàlla baal la ko moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam bu nit feebaroon mu seet si ko bokk na ci lim koy wax laa baasa tahuur insha allah du dara yàlla lay fóot rek yàlla lay fóot boo setee rek yàlla baal la wala yàlla baal la bàkkaar yi daal lay rey dugal la aljanna gis nga bàkkaar bu ñu la ko baalul ci àdduna soo duggee ak moom biir bàmmeel ñu mbugal la yat ba ul mayit salaasa wa yarji isnaani wa yabqa waahid ku dee ñett lay gunge ñaar ñi dañuy dellu si nga ànd ak kenn ki dem ku dee rek ñett ñoo lay gunge ñun ñii bis bu ñu deewee ñett ñuy gunge ku yebu dégg ko ñaar ñi dañuy dellu nga ànd ak kenn ki jëm àllaaxira kii njëkk a dellu mooy sa alal ci bunt kër gi lay yem waaw waaw benn yére du la topp benn montre du la topp dàll du la topp mbaxane du la topp oto du la topp dara du la topp compte banque du la topp jabar du la topp kër du la topp lal du la topp dara alal jëpp ci buntu kër gi lay taxaw ne la boy robar a jë bi ngay ñëw ci àdduna indi woo ñu woon indaale woo ñu woon kon ñun duñu ànd ak yow fii nga ñu amee woon fii nga ñuy bàyyiwaat ndax ñun fii lañ xam nga ni leen yaay yéene yow yaay ci yaay traite ñu ne la demal yaa xam yéen ni ngeen may def ak ni ma sonne ci yéen nga xam ne dama dajale ay compte ñu ne waaw da ngaa dee ku dee kay dootul lekk dootul naan dootul solu bàyyi ñun ñu dem ci keneen say mbokk say xarit say àndandoo say am di jàmm say soppe ñooy dem ba ci armeel yi taxaw bu ñu gasee ba mu xóot bu fekkee ne jigéen la ñu ne ana mbokk yi ko jege al aqrabu awla bu fekkee du du jigéen moom dañ naan ana gaa yi rek nga gis ñetti nit cëppeelu waaye ñooñu di dugg sax benn tànk la ñuy dugal génne benn tànk nga naan leen booy ñu naan la non booy match Barça bi tey la quoi ñun dañ koy seetaan yi benn tànk la ñuy dugal ndax bëgg a delluwaat léegi àdduna waaw nga naan leen ah yéen nii la ak ni ma àndee woon ak yéen yëpp ndeysaan moo tax àdduna àdduna jaay nanu ma ne ñi lay dugal ci bàmmeel bi kenn du dugal sax ñaari tànkam te kenn du fa nangu dugg daan ne xaaral ma wéttaliku tey kenn ci ñun fii su ma ne woon léegi damay dem màkk kan moo may gunge yëpp a ngi nii di dina am ku jóg wala du am ku jóg suñu ne woon léegi kenn day dem États-Unis ku may gunge lépp a ngi nii da nga naan du ma tàggoo ci lan dem bu ma yeggee woote wala damay dem Italie ku may gunge di nga am ko àndal wala gars yi du ngeen ma tontu di nga am damay dem alaaxira kenn du la gunge yow rek kon nag comme yow rek la góorgóorlu lay baaxal foofu nga nekk ci comme yow rek laay dem anta wax dak yow la ñuy dugal ci biir bàmmeel bi yow kenn la ñuy suul ñaata nit ñaata ñoo leen gunge woon ñaar ñi dellu ñaata la gunge woon ñett ñaar ñi ñibbi nañ kenn moo des mooy sa jëf sa jëf ngay àndal ci biir bàmmeel yi kon jëf yi war naa rafet man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalih gis ngeen tabaraka allazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayikum gis nga amal bi ahsan fële mu ne fal yamal amalan saalih amal saalih xam ngeen mooy lan mooy jëf ju baax xam ngeen jëf kañ lay baax foog mu am ay charte yuy tax ñu ne jëf ji baax na nekkul da ngay ñëw fii rek daal di def dara rek ñu ne kii kii de jëf ju baax la def déedéet xam nga Sénégal moom bu fi mu nekk boo takkoon ay rajo commencé yuuxu rek ah ba bët set rek ñu ne kii de ci lu baax la nekkoon baaxul baaxul de ku ko baaxal boo demoon léegi ci digg tali bi fee lal ci naaj bi génne sa ay affaire rek ñu ne ndeysaan kii ci lu baax la nekk bu leen ko wax dara ku la wax baax na jëf ju baax du loolu jëf ju baax xam nga nu muy demee day fekk yàlla santaane ko ne def leen ko waaw ban waxtu lañ mujjee julli léegi léegi fi ci jàkka ji ah tisbaar ñaata rakka la ñeent su benn waay jógee fële daan ne yow yow da nga yow da nga tayal quoi xam naa da nga woor yow munoo dara xanaa da nga xiif ñaata nga julli nga ne ko ñeent mu ne man diis laay julli dama koy yokk lal si jaada bi dóor diis yu garaaw teg julli na wala julliwul ah kay julli na wala julliwul julli na de danañ ko fay wala duñ ko fay ah kenn du ko fay lu tax dëppawul ak diñ ko sant non misaal boobu dafa jege xaaral ma jël bu gën a garaaw bu nu wooree léegi ba koor gi di jeex dafa am luy xew dañuy julli iit ñun ñëpp dañuy ñaw lu ju yére ah na kenn dem jënd jasineer ñëw ci téyeer bi ne ko ñawal ma ko grand mbubu chemise ak tubéy mu dem def ko benn ngandum caaya lépp lem ko nag passé ko moom rafet nga ñëw mu ne non ustaas ñawal naa la ay ca ngandum caaya laa la ñawal nga ni ko lan mu ne caaya yi ñoo xew temps yi nga ni ko ma xool nga yaakaar ne ay caaxaan la nga gis caaya bi mu mu cinquante mètres di nga ko fay wala doo ko fay damay laajte ku moom yére boobu da ngay fay waa ji téye wala doo ko fay non non balaa korosé yi ndax damay laaj ndax di nga ko fay wala doo ko fay doo ko fay lu tax doo ko fay parce que li nga ko sant def ko gis nga loolu mooy jaamu bii ñuy def gis nga boo fi ñëwee ngay def benn jaamu yàlla bu la yàlla santul da ngay sonal sa bopp kenn du la fay jaamu yàlla boo def te yàlla santu la ko kenn du la fay ndeysaan moo tax Omar ibnul Xataab dafa romb waa ji ci église bi waa ji di yuuxu di yuuxu rek Omar jooy ñu ne Omar labbe nga gis di jooy mu ne jooy ma loolu ñu ne looy jooy mu ne sama xel moo dem ci ab aaya alquran ñu ne ban aaya la mu ne amilatun naasiba sonn te du fayeeku kii daa sonn te du fayeeku loolu laay jooy dafa am tey Sénégal ñu sonn te duñu fayeeku mbokk yi wallahi alazim Sénégal dafa am ñu sonn te yàlla du leen fay ëllëg te yaakaar nañ ne ñoom ñu ngi ci lu baax wallahi te te te baaxul li ñu nekk baaxut li ngay def pour yàlla fay la foog mu dëppoog yàlla sant la ko ne la def ko bi la yàlla ne def ko muhammad wan la nuñ koy defee moo tax mu ne xuzu an nii manasikakum lu reelu la nag benn waaye dafa posé question mu ne ku dugg ci jàkka ji ne allahu akbar def nii ndax am na julli gars yi ne ah waaye kooku day fawaay ñu ne mu ne ah ñu ne ndax lan ñu ne meeg nii nii nii yonent waxul nañ def nii amul hadis amul aaya mu ne d'accord ku dugg ci jàkka ji ne allahu akbar ne nii nag ñu ne ko boobu tamit mu ne kii ne allahu akbar ne nii nag fu ngeen ko teg kon ndax dafa am riwaaya dafa am hadis dama leen laaj lu tax yéen ngeen ñeme ne ki def nii julliwul ki def nii julliwul ngeen wax loolu du yéen a ko wax léegi ki def nii nag ana hadis bi ana aaya bi ah déedéet wax leen ah kon fee da ngeen dëgër fit rek kon kay ku mu neex nga dugg ne allahu akbar ne nii ngoog kon mbir yi du yow ni nga ko gisee moo tax gis nga jaamu yàlla ay texte la moo tax yonent bu mu jullee pare dana sallu kama raaytumuni keroog ca arafaat ci naaj bu tàng ba nga xam ne yonent bi mu ngi siit ñaq baa ngi siit saxaaba yi xool ko yërëm ko lépp a ngi tooy xepp ñaq bi di wàcc benn saxaaba moo dindi armalam ñu takk ko ñetti bant ñeenti bant ci cat yi ñu tiimale ko yonent bi ndeysaan ndax mu am ker ma nga naan leen xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla loolu la laa ilaha illallah muhammad rasulullah di tekki avion ñaata laaf la yam dégguma dara de avion ñaata laaf la yam ñaari laaf mën ngeen gis avion buy naaw am benn laaf mos ngeen ko gis de ku la bëgg a dugal ci avion bu am benn laaf doo dugg ñaari laaf yi mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah mooy ñaari laaf yi yàlla rek la ñuy jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla tout court mu jeex loolu lay tekki amul beneen firi yàlla rek lañ war a jaamu waaye ni ngay jaamoo muhammad moo la koy wan kan moo la wax suba ñaari ràkka la kan moo la wax tisbaar ñeent la kan moo la wan nuñ koy defee kan moo ñu wax weeru koor weer la kan moo ñu wax fu muy tàmbalee fu muy yem kan moo ñu wax lu koy yàq lu koy defar muhammad léegi na nga bàyyi fi lii lépp nga ne man naa naa xiin samay sabar rek di tëgg rek ëllëg danaa dugg àjjana nga bàyyi fi li yonent bi indi te yàlla wax ci suratul ahzab fal yaxzari allazina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun na ngeen mooy tandi ku wuuteeg yonent bi ku wuuteeg moom dinaa la mbugal àdduna mbugal la alaxira yàlla wax ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen yàlla wax ne yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullah inna allaha samiun alim bu leen jiitu yàlla ak yonent bi saret du jiitu fas wala tëngëj saret day jiitu fas yi ah Moussa tëngëj saret day jiitu fas yi ah saret du jiitu fas moo tax yàlla mu ne laa tuqaddimu yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi yonent bi mooy jiitu ñu topp ci di xool yonent bi nu muy defee ñu defee noonu ndeysaan moo tax saxaaba yi yàlla may leen ndam ci lépp nag yaa def ñu def loolu la ñuy wax xoolal keroog ba ñuy tourné saxaaba yi boo demee mag ñu lay wax mas ñu lay wan masjidu xibla tey ni jàkka ji nga xam ne ñaari xibla la am ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa julli ñaari ràkka jublu fii waaw mu jublu masjidul aqsa Jérusalem mu jàpp ci óom yi mu ngi rukkoo mu jékki-jékki rek daal di tourné jublu makkatal mukarram masjidul haram saxaaba yi daal di tourné bi mu sëlmale mu ngi saxaaba yi tourné mu ne ñu ne mu ne leen waaw ku leen tourné loo ñu ne ko yaa tourné ñu tourné waaw ñoom noonu lañ ko doon toppee yaa tourné ñu tourné ñooñu tooguñu daal waaw waaw luy sa dalil ci lii nga def yow yow ku la topp nga alak ko soo teyee nga ni nii suba nga ni nee déedéet ñooñu yaa def ñu def beneen bi da doon julli summi dàll yi jibril moo ko ne woon summi sa dàll yi bi mu simmee dàll yi mu pare mu gis saaba yëpp seen dàll yi ran comme ñun sunu dàll yi day ni muy ran mu ne waaw lu xew gars yi ne ko yaa simmi ñu simmi yaa simmi ñu simmi ñoom noonu lañ toppee woon yonente bi Seydina Ali mar na naan may leen ma ma naan ñu indil ko ndox ndeysaan mu teg benn ñaar ñett daal di muuñ ñu ne ko muuñ gi nag mu ne hakaza raaytu abal qasimi muhammad sallallahu alayhi wa sallam faala fa faaltu nii laa gisee yonent bi def ko moo tax ma defee ko noonu yonent bi looloo gën a tuuti bi mu ajee aj gu mujj dafa wéeru ci kaaba gi dindi manto bi toog ci kaaba gi ndeysaan di noppalu di socc après mu jooy sahaaba yi ñëw ci moom ne ko maa yub kii ka ya rasulallah mu ne fa kayfa la ab kii wa haazal hajj hajjatul wada mu ne lu tax duma jooy aj bi mooy aj gu mujj amaana ma nekk ak feeg yéen waaye ren duma fi nekk bi yonent bi génnee àdduna sahaaba yi jógee Medine ñëw Màkka di aj am ku ne Abdullah ibnu Omar yonent bi de wéeru woon na ci kaaba gi ba muy aj aj gu mujj wéeru woon na ci kaaba gi Abdullah ibn Omar ne sahaaba yooyu doon ko ko wax yonent bi fan la wéeru woon ban côté gars yi ne ah fàtte nañ ko nag mais wéeru woon na fi nag Abdullah ibn Omar daal di sànni mantoom ñëw di teg ndiggam ci ci ci miir bi naan nii di dem naan nii di dem ñu ne ko looy def nii mu ne damaa bëgg sama ndigg laal fa ndiggam laaloon damaa bëgg sama ndigg li laal fa ndigg Muhammad laaloon Omar ñëw na ci xajaratul aswad taxaw ne ko alimtu annaka xajar xeer kese nga laa ta dur wala tanfa doo lor doo jëriñee fa wallahi law lam ara rasulullahi salaa sallam yaqbiluka ma qabaltuka su ma gisuloon yonent bi di la fóon du ma la fóon mukk daal di koy fóon parce que gis naa yonent bi fóon la moo tax ma fóon la tey ah gaa yooyu noonu la ñu meloon lu yonent bi defoon la ñuy def waaye ñun julli fay faat fan ngeen ko jëlee julli fay faat vendredi bu mujj ci weeru koor waaw tëngee dinañ julli fay faat sa koñ dañ koy def fu ñu ko jële fan lañ ko jële voilà ban hadis la ban aaya la ci ban téere la nekk ndax hadisu fay faat mu ngi ci Bukhari ndax mu ngi ci muslim ndax mu ngi ci Abu Dawud ndax mu ngi ci Tirmizi ndax mu ngi ci Nisa ndax mu ngi ci Ibnu Maaja ndax mu ngi ci Muwatta amul beneen bi xoolal loolu sax da ngay gis même naafila yi da ngay gis oustaz bu def tafsir ba pare ci rajo bi rek salaamaaleykum tey naafila koor gi ñaari rakka la rakka bu njëkk bi faatiha la ak cinquante yaasin deuxième rakka bi faatiha la ak soixante suratul nas loolu ko bëgg julli foo jëm Sénégal moo bëri ay ñoo bëri problème ba pare boo baa ji waxoon loolu sax noppi alhamdulilah mën ngaa dem nga def ko waaye mu ne ku ko julli baal nañ sa ndey baal sa baay baal say doom baal la baal say dëkkandoo baal ku la gis say xaj ak say muus ak say ginaar sax baal nañ leen ndeysaan ay Sénégal moo neex maa jaamu yàlla yi nun neexee dañ koy indee nun neex dañ jekk-jekk rek commencé def ay jaamu yàlla nga ni waa lii la la ñu ne la diwa ko joxe waaw mais bàyyi leen ba ba ñu ngi ju waaj a julli taakusaan nii bàyyi leen ba jàkka ji ñuy julli taakusaan da gis ko xam ne bu ñu ne asalaamaaleykum nga gis mu naan. sijaada yi suñ soo ci bindee dara ndax day marqué bindal bindal ndax day marqué aleloo bind nga gis waa ji di bind keraj keraj soo ko ne yow lii lan la mu ne la sama benn paa bu baax moo ma ko jox sa paa bu baax boobu ak yonent bi ku gën a baax est-ce que yaa ngi imaginer sa paa boobu li muy baax baax baax baax moo ak yonent bi ku gën a baax yonent bi am lu mu la indil nga bàyyi lu mu la indil nga jël li la paa bi indil wala wax dëgg yàlla problème rek lañu am neexul ba neexul mais problème kese la sunu diine ji nekkee léegi nag lii moo tax du ñu am taxawa li mooy gàllankoor yi tax taxawaa du ñëw ndax yow mbir mi ni ñu la waxee defee ko defee ko noonu ah kon ba pare nga bëgg am résultat te yow ni ñu la ko santee defee ko noonu même laa ilaha illallah bi sax waxee wuñ ko nim noonu laa ilaha illallah bi sax waxee wuñ ko noonu laa ilaha illallah laa ilaha da ngay gis ku yor kurus laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy lan nga gis keneen yor kurus naan au lieu mu ne astaghfirullah nga ne mu naan saafurulaay saafurulaay lan mooy saafurulaay nga war a wax subhanallah ne nga naan subhanalaay subhana gars yi sax dañ koy waye subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah du loon ngeen koy waye ah waaw amu nga ko kon nag mbir yi du dem taqwa du mun a am c'est parce que mbir yi niñ koy defee baaxul te su baaxul résultat taqwa du am gis nga mbir yi buñ ko defee niñ ko war a defee rapidement ragal yàlla day am nii xool leen jaamono sahaaba yi Omar ibnul Xattaab am na jigéen ju doon jaay sow di ko jar doom ji ne ko ah yaay li ñuy def baaxul de mu ne ko defal Omar nekku fi mu ne ko in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana li nga soow moom keroog la normal compteur prix ñëwul gendarme ñëwul douanier ñëwul eaux et forêt ñëwul benn baat la ñu wax in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana affaire bi normal parce que ñu ngi koy def ni ñu ko war a defee Abdoulaye ibn Omar romb na sàmmkat bi ci àll bi mu yor ay xar mu ne ko ku moom xar yi mu ne ko dañ ma koy sàmmloo mu ne ko rey reyal benn jaay ñu ko mu ne ah moom ma ko borom nag mu ne boo demee nga ni borom till yi ñoo ko faat sàmmkat bi daal ni Abdoulaye ibn Omar ayna Allah ana yàlla Abdoulaye ibn Omar tee sikkimam di yuuxu ci àll bi naan qaala ra'i ayna Allah qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla ragal yàlla ba sàmmkat yi sax dañoo ragal yàlla ñun tey ñun tey sàmmkat yi laa wax démb dañoo ragaloon yàlla ñun tey fii moo ah nga gis kilifa diine buy dóor ay mart takk cinquante jabar ah waaw ba pare ñu bëgg am ragal yàlla du loolu olof yi nee nañ la mu saf ka ko macca ko xam mbir mi nag ñun boolub ceeb la bu ñu teg ndogu nga tibb au lieu nga sax nga teg ci sa doq xam nga loo yëg tàng na waaye doo yëg saf na mbokk yi kon sunu borom subhanahu wa taala lim ñu wax mooy ku ragal yàlla jafe-jafe boo am yàlla dina la ci génnee bokk na ci qubulul amal yàlla ku ragal yàlla yàlla nangu sa jëf innama yataqabbalullah minal muttaqin ku ragal yàlla loo mën a def yàlla day nangu jëf yi ndax yàlla ñi ragal yàlla lay nangu seen jëf léegi nag yow boo jullee ragaloo yàlla te yàlla nee na ñi ragal laa koy nangul yow ragaloo sa jëf du dem nga woor ragaloo yàlla kon nga bokk ci ñooñu ne rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atas wala riwaaya beneen bi wa xazzuhu min siyaamihi illa al ju wal atash woor ba ngoon ndeysaan ñu ñu lëmas koor gi ne la jëlewoo ci lu dul xiif ak mar am xiif ak mar rek nga ci am te xoolal loo ci waroon jële mooy ragal yàlla waaye munoo ko am c'est parce que ni nga wooree du noonu ni nga defee jaamu yàlla bi du noonu kon yàlla ñi ragal yàlla lay nangul ñi ragal yàlla def lu baax ñooñu la yàlla di nangul kon ku ragalul yàlla yàlla du la nangul dara juróom-ñeenteel mooy tawassul ila mardati rabb wa takfiru sayiat wa najaatu min annar wa duxuli ljanna wa man yattaqi llah yukaffir anhu sayiatihi wa yuzim lahu ajra mbokk yi ku ragal yàlla di nga am ngërëmal yàlla di nga ko làq te ngërëmal yàlla moom mooy lépp gis nga nit ci àddina boo amee ngërëmal yàlla saye mooy nga am yàlla kontaan ci yow yàlla toog malaul ala nekk malaul ala fa mu nekk fa mu nekk moom yàlla mu nekk fa naan malaaka yi xool leen sama jàmbee kontaan naa ci moom kooku waa ju am loolu lan lay deseeti ci àdduna kooku lan la perte kooku lan lay ñàkk ba mu métti ko ah kooku su xiifee du ko yëg su maree du ko yëg su ñàkkee nelaw du ko yëg su tumarankee du ko yëg su wéetee du ko yëg parce que moo ngeeg yàlla ku ànd ak yàlla wéetoo koo mën a àndal ku dul yàlla bés dana ñëw mu bàyyi la nga wéet bu dee jabar dana la bàyyi nga wéet suñu benn waay papaam daa gaañu papaam daa moon àndandoo yu bëri nag xale bu réew nag xale bu réew la alma prise alma prise ma chargé su ngeen amee kii relance ma branché ci pour charger kii bi dama fàtt dama ko fàtt chargé dafa sori amu leen kii relance waa ji ndeysaan papam gaañu ku réew la ñu suuli ko ñëwaat muy moke muy moke xaritu papam yi moo leen yéen yéen du ngeen sama xaritu papa dara yaa ni ko mbay looy wax ni yéen kenn du ci sama xaritu papa xaritu papaam yi de ñu ne ko lu tax mu ne bu tax bi ñu koy suul àndule nag moom ngeen di dunge ko benn paa bu ko gën a xamal dina ko sa yaay moo ñu ko gënoon bëgg te demul sa yaay moo ñu ko gënoon bëgg te mu ngi nii toog ah gis nga kon gis ngeen mbir mi ndeke ku ko bëgg da nga ciy nekk olof yi nee nañ ku bëgg akara ngay ñeme kaan da ngaa bëgg aljanna da ngay bëgg jaamu yàlla da ngay def jaamu yàlla bi ni la ko yàlla sante waaye parce que da ngaa bëgg am ngër yërmande ngërmal yàlla Moussa keroog bi ko yàlla ne ñëw leen nga ànd ak banu Israël ngeen ñëw ñu yéex yéexlu Moussa daf leen faa bàyyi ne fes dem ba ko yàlla ne ana gaañi dafa ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yàlla damaa ñëw pour man nga gërëm ma fële laa leen bàyyi man teel naa ñëw pour yàlla nga kontaan ci man ndeke kon da ngay fexe nga am ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla tabaraka wa taala waaye nga fexe nga mucc ci safara wa najaatu min annaar beneen ba ca tegu mooy asaar yi ma doon wax sànq mooy asaaru taqwa fil fard su ñëwee ci asaaru taqwa alal mujtama li muy njëkk a def mooy al bu'du anil inxiraaf al fikri wal aqaidi mooy nga yërmande yàlla ragal yàlla li muy jëriñ li muy def ci société mooy day fexe société bi sori ay bakkaar ci seen pas-pas ak ci seeni xalaat seen idéologie li tax tey Sénégal nit ñi mënuñoo am ragal yàlla société bi ragal yàlla mënu fee am mooy pas pas yi li ñu fas baaxul pas pas yee baaxul yàlla rek rek moo nekkul ci xol yi da ngay wax ak nit sax ah yow yàlla rek nga gëm yàlla kese kese kese demal yàlla kese de dafari tax waaw yàlla kese dafari tax loolu déggu leen ko fi wala yow yàlla kese nga gëm suñu benn xarit papaam dafa gaañu ndeysaan gaa yi dem suul ko ñëwaat ñu ne dañuy dëj mu ne kenn du fi dëj ñu woo ko réunion bàyyi ñu dëj mu ne dëj baaxul kenn du fi dëj dëj du islaam benn waaye ne kii da ngeen ko bëgg a waar kii yàlla rek la gëm dafa dof bàyyi leen ko waaye ku gëm yàlla da ngaa dof yàlla rek la gëm ab dof la mun leen ko wax lu mu dégg ndax yàlla rek la gëm gis nga léegi nag société boo xam ne pour nga nekk nit foog nga gëm yàlla ak leneen société boobu du dem pas-pas yi bu baaxul société bi du réglé wu gis nga yéen a ngi jooy problème mu transport ay accident tey ji Sénégal problème bi gën a garaaw ci Sénégal mooy accident xam ngeen lu tax ragal yàlla moo amul moo tax maadaama ragal yàlla amul kenn mënta fexe ba accident yi jóge fi loolu rek ngeen di jooy ci Sénégal du lool rek dara du réglé wu parce que pas-pas yi baaxut nit ñi nga xam ne gëmuñu yàlla kese yàlla rek ngay gëm lépp loo bëgg daal di réglé wu yàlla rek waaw pas-pas yi bu baaxulee ñun ñëpp ñu bokk pas-pas ñu gëmandoo yàlla benn kenn ci ñun amul leneen lu muy seet lu dul yàlla moomu mbir yi du baax beneen bi mooy li ñuy jàng suñuy xalaat su fekkee li ñuy jàng baaxul société boobu du ñu mën a am ragal yàlla tey nag yéen ñëpp xam ngeen ku nekk gis nga lan mooy sunu programme lan mooy sunu jàng mbir yi lan moo fi nekk moo tax jafe-jafe daa di am problème daa di am guddeeg bëccëg ñu nekk ci te dara dara mënta régler kon ab société mbokk yi suñu bëggee euh, ragal yàlla jeexital ci société bi lu ñuy def mooy fexe ba société ba ñu yar leen ci ragal yàlla gis ngeen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu ra bi mu yaree nit ñi ci ragal yàlla mag dañuy julli kenn du tëj taabal yi kenn du tëj benn waaye ndeysaan mu ngi may wax barki démb nee na li ko gën a marqué ci aj bii mu aji woon bii passé nee na dafa war dafa for benn saak saak bi lu bëree ci nekk ci alal mu for ko nee na mu dox ak saak bi ay kilomètre ba mu gis benn policier mu ne policier bi lii dama ko for mu làkk ko ci anglais ne ko lii dama ko for ma bëgg la ko jox policier bi ne ko delloo ko nga teg ko fi nga ko fekkoon borom dina ko jël si delloo ko ba fi nga ko fekkoon nga teg ko fa borom dina ko jël si man beneen bi man mii la dal dama ànd ak sama benn xarit ñu aji ma njëkk ko ñibbisi ma njëkk koo ñëw bi ma ñëwee mu ñibbisi mu ne ma xam nga lu ma dal ma ne ko déedéet mu ne ma sama portable dafa réer màkk ma génn ci kaaba gi ma yegg sama kër rek ma woote téléphone mu ne am ñu ma jot ñu ne man boo ñëwee ba ci kaaba gi place sàngam sàngam portable baa ngi foofu mu ne ma ñëw ndeke benn place la boo xam ne dañ ko defar def ci ay def ci lépp pour portable yi ñuy fàtte seen i portable seen portable réer ku ñëw rek dañuy branché bàyyi noonu am ñu toog portable bu sonné rek ñu ne la yaa ko moom nga ne waa nga ñëw ñu jox la moom mu daal di ne portable maa ko moom ñu daal di koy jox mu aj baaj bi jeex mu wàcc aéroport Dakar Yoff mu jël taxi mu toog ci kanam di wax ak borom taxi bi mu wàcc kër gi rek nit ñi xam nga noo ñuy dawee di song alaaji yi mu fàtte portable bi mu yëg ci saal bi rek port xelam ne fër ci portable bi ñu woote boîte vocale ah lu ngeen xalaat ci loolu wuy leen ma parce que société bi ragal yaruñu leen ci ragal yàlla société dañ leen di yar ci ragal yàlla nit bu ñu bëggee ñu baax bu ñu bëggee dëkk bi baax nit ñi dañ leen yar ñu ragal yàlla ñaari waay dañoo am dañoo am tool kii daa jaay tool bi kii jënd tool bi kii jënd tool bi di bay tool bi mu fekk ci benn valise su xaalis valise su or la ci fekk bi muy gàbb rek mu gis benn valise bu am or bu fees dal mu ni lii de ki ma ko jaay da koo fàtte mu liggéey ba wàcc mu yenu valise bi ne ko lii de ci tool bi nga ma jaay laa ko fekk xam naa yaa ko moom da nga koo fàttoon waa ji ne ko sawaay moom ma ko de bi ma la jaayee tool bi lu nekk ci tool bi jaay naa la ko jëlal bu ma indil problème jëlal lii nga yóbbu waa ji ne ko du ma ko yóbbu yaa ko moom parce que yaa ma jaay tool bi ñu koy xëccoo ñoom ñaar yaa ko moom moom ma ko bu doon ñun fii nu nii de parce que ñee dañ leen yar ci ragal yàlla seen ngëm-ngëm yi lañ defar ñun ngëm-ngëm yi baaxul pas-pas yi baaxul dara baaxul mbokk yi waaye loolu sax li ci gën a doy waar mooy ñaar ñooñu borom xam-xam ba def leen ni yéen ñaar am ngeen ay doom ñu ne waaw doom yi lan ngeen am kenn ki ne man am naa doom bu góor keneen ki ne man am naa doom bu jigéen mu ne da ngeen di indi ñoom ñaar ñu maye leen valise su xaalis bi nekk seen can gis nga société bu ñu bëggee ñu baax dañuy yar nit ñi ragal yàlla daal di defar pas-pas yi su ko defee société ba daal di baax ñaareel an nasru min allahi lil muttaqin bokk na ci yàlla di dimbali société yàlla di leen may ndimbal may day fekk ñu ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne wattaqu llaha waalamu anna allaha maal muttaqin su ngeen bëggee yàlla ànd ak yéen da ngeen di ragal yàlla keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wootee Badr ñaata nit la àndaloon ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñaata la doon xeexal junni ñan la yàlla àndal ñetti téeméeri fukk ak ñett parce que ñoo ragal yàlla Moussa keroog ba muy xëccoog Firawna Ibrahima keroog ba muy xëccoog Namruud ñoo ñëpp lan moo tax ñu génn ci mooy dañoo ragal yàlla nit bu ragalee yàlla rek yàlla dimbali ko société bu ñu ragalee yàlla yàlla dimbali leen waaw xoola banu Israil ak copte yi banu Israil lépp Firawna di ñàng ñàng ñàng ñàng ñàng ñàng yàlla dimbali waa banu Israil ci kaw Firawna kon nit ñi société bi su fekkee dañoo bëgg ndimbal yaakaar yàlla bokk na ca lay tax yàlla di leen indil ndimbalam fu ñu toll mooy ñu ragal yàlla tabaraka wa taala yàlla ci la leen di dimbali almaiyatu hadihi maiyatu nasr wa taayid wa tashdid inna allaha maa maa almuttaqina bi yàlla di wax maiya boobu ànd googu yàlla di ànd ak société ba ci ndimbalam la ak di leen kattanal ak di leen dëgëral ñeenteel mooy société suñu bëggee seen wërsëg yaatu foog ñu yar leen ci ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw luy xew mu ne la fatahna alayhim barakatin min alsamaai wal ard nit ñi bu ñu ragaloon yàlla walaw anna ahlal qura waa dëkk bi bu ñu ragaloon yàlla yàlla nee na ma ubbil leen xéewali asamaan ni ñuy wàcc la fatax naa la yàlla wax damay ubbi lan laay ubbi mu ne barakaat min asama barke bi daal di wàcc daal di rongalaat dëkk bi yëpp daal di baax waaye comme nit ñi dañoo kàccoore yàlla nee na ma tëj bunti asamaan yi ñeenteel ci société al hifz min kaydil aada société bu ñu bëggee yàlla aar société bi ci noon yi société ba dañ leen yar ci ragal yàlla wa in tasbiru wa tattaqu laa yadurrukum kayduhum shay bu ngeen ragalee yàlla gëm yàlla pexe noon yi du leen mënal dara gis nga tey jullit yi ci àddina bi bu ñu ragaloon yàlla Amérique mënul leen dara France mënul leen dara anglais yi mënuñu leen dërëm tey li tax ñooñu mënal ñu dara mooy jullit ñi dañoo kàccoore moo tax say-say lañ moo tax yàlla jël fira américain yeeg ñeneen ne caw leen ba ñu mokk ndax yàlla wax dëgg yàlla nee na nit ñi buñ leen yaree ci ragal yàlla man yàlla ma dimbali leen ci seen i noonu gars yi firaw na ak Moussa ko pon doole tontu leen ma Namrud ak Ibrahima ko pon doole yonent bi ak waa Quraysh ko pon doole Quraysh waaye gis nga mbooloo yi ma wax yépp la ñuy néew néew doole yàlla tabaraka wa taala indil na leen ndimbalam juróom ñaareel ci société mooy najaatul mujtama min azabi dunia nit ñi bu ñu leen yaree ci ragal yàlla yàlla musal leen ci musibay aduna wa anjayna allazina amanu wa kaanu yattaqun keroog ba yàlla di alak nitu luux yi nitu luut yi nitu luut yi ba yàlla di leen alak lan lañ doon def ba yàlla di leen alak ay góor jigéen lañu woon waaye sunu borom nee na ña ragaloon yàlla ci société bi fekke wu ñu mbugal mi ba yàlla di alak nitu nuux yi ña nekkoon ca gaal ga ragal yàlla mbugal ma fekke wuñ ko kon ku ragal yàlla yàlla dimbali la ci mbugalum àdduna bu bu yàlla di mbugal waa àdduna doo ko fekki waaw yàlla lay aaral boppam kon mbokk julit yi beneen juróom ñaar juróom benneel mooy ximaayatullahi lil mujtama min darari shayatin jinnan kaanu aw insan qaala taala inna alladina attaqaw ida massathum taifatun min alshaytani tadakkaru fa ida hum mubsirun allahu akbar sunu borom tabaraka wa taala nee na nit ñi buñ leen yaree ci ragal yàlla société bi yàlla mooy aar société ba ci seytaane Sénégal nag ñii crise bëri na de ñii daanu école yi sax léegi ndeysaan ku jàngi daanu jënd may mun a léegi sax ndeysaan ku bëgg xaalis da ngay ubbi mocckat gaa yëpp a ngi mocc man ñama xamoon géejawaay ñëpp ña ngay mocc ñëpp ubbi nañ ay cabinet mocckat dañuy mocc jinne société bu ñu ragalee yàlla yàlla aar leen ci jinne yeeg seytaane yi sunu borom nee na nit ñi bu ñu ragalee yàlla ah su leen dara laalee bu ñu musloo yàlla ci seytaane rek seytaane daw kon jarul mocc benn jigéen seytaane daf ko dugg ñu indil ko Omar ibnul Xattaab Omar ne lan la ñu ne seytaane ko jàpp rek Omar ne téele ko ñu téye ko Omar jàpp ci nopp yi daan ne qaaf seytaane bi ne putt mel ne muus mu ñuul rek daw ndaw si ne cocc Omar génn àdduna ay at seytaane bi daal di dellusiwaat ne sarax ci ndaw si waaw de- seytaane day gudd day dund fa yonent bi alayhi salaatu salaam seytaane jinne ji doon ànd ak moom ba léegi mu ngi dund waaye yonent bi nee na yàlla ma dimbali ci moom mu tuub su ngeen demee ci téere boobu tudd xibaaru saxafi ma jinnul muslim te mu tudd Moustapha Kanjour nee na jinne jooju mu ngi tudd Habibul Haadi nee na ma nga ca bàmmeelu baqiya fa yonent bi doon suul saxaaba yi nee na jinne bi fa la dëkk di jàngal jinne yi tuub sahihul Bukhari ak muslim mbokk yi Omar génn àdduna jinne ji daal di dellusiwaat ci ndaw si ne sarax benn waay daan ne fekkee naa ko ba ko Omar di faj xam naa la mu jàngoon ñu indi ndaw si waa ji ne aoudu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim qaaf jinne ji ne ko lasta Umar lasta Umar doo Umar Omar yonent bi nee na daa ragaloon yàlla bu bu jaaree mbedd seytaane daw wiiri koñ innahu umar moo tax ndeysaan ba mu jiitee jullit ñi ca maandute ga ca ragal yàlla ga ca mbaax ga muy contrôler dëkk bi mu dox ba sonn ci marché bi mu ñëw ci garab gu féex mu daal di simmi dàll yi njaganaa yooyu ko di nelaw kañ ngeen di am président bu mel noonu président bu ñëw ba Sandaga jël mer gàddu lal ko tëdd di nelaw kañ ngeen koy am yéen waa Sénégal du gaaw de parce que injustice bi dafa bëri ci dëkk bi Omar ndeysaan ba kii Rome yu yónni woon na dem xooli Omar mbedd bu mu jaar ñu ne ko fii la jaar mbedd bu mu jaar mu ne ko fii la jaar ba caag am ko ne gis naa ko fee muy nelaw mu ñëw tiim ko ndeysaan amirul muminin mu njaganaayoo ay dàllam di nelaw mu tiim Omar xool ko ba caag mu ne ko xakamta wa adalta wa nimta wa aminta xakamta atte nga ba nga attee adalta nga maandu ba nga maandoo aminta nga am kóolute ba nga amee kóolute nga ñëw fii ci marché bi wa nimta nga nelaw nga gis nga ku ragal yàlla soo tëddee rek da ngay nelaw dooyam ci nelaw sax waaye da ngay xandoor société dañ leen war a yar ci ñu gëm yàlla bañ a gëm seytaane bañ a gëm ay xàmb bañ a gëm ay xërëm di sangu da ngay dégg ngay gis imam buy sangu damay sangu de wóorut yow looy sangu kon kay yow jarul ngay jiite nit ñi da ngay gis kilifa diine am na benn dëkk boo xam dañ faa dem fii ci boru bayaax dindi xàmb yëpp sànni ko ci xaj dëkk ba yëpp lañ dindi xàmb yi benn waay ne ah li ngeen def garaaw na de balaa ngeen doon dindi xamb yi da ngeen war a ñëw ñu laaj ji sëñ diw moom lu mu leen ci wax ba pare ñu ne nañ jël oto gars yi daal di luwee benn njaganjaay ñëpp dugg ñu jëm dëkk boobu ba ñu wàccee ñu ne sëñ bi ah ñun de dëkk ba dindi nañ suñuy xamb yëpp moo tax ñu ñëwoon di la laaj sëñ bi fi mu toog mu ubbi benn fenêtre mu ne man de samay bos a ngi nii dindeeguma ko gaa yëpp daal di ñibbi sampaas seeni bos fi mu toog laa wax nii la def fenêtre bi daa ne man de samay bos a ngi nii dindeeguma ko dëkk ba ñëpp ñibbi sampaas seeni bos dëkk boo xam ne xërëm lañ gëm xërëm fu ñuy demee gaa yi ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla munu ñem munu ñem masalul lazi yazkuru rabbahu wallazi laa yazkuru rabbahu ka masalil hayyi wal mayit ki gëm yàlla di tudd boroomam guddeeg bëccëg mooy dund ki gëmul yàlla daa dee kon nag société nañ leen yar ci ragal yàlla kon suñu ragalee yàlla yàlla aar société bi ci seytaane juróom-ñaareel mooy naylu wilayatillahi li awliyaihi société bu ñu ragalee yàlla yàlla méngoo seen mbir seen mbir yëpp yàllaa koy yor ci loxoom sunu borom subhaanahu wa taala mu ne ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun ñan la allazina amanu wa kaanu yattaquun kalima baa ngoog yàlla nee na sama xarit yi awliya allah ñooñu du ñu tiit du ñu jàq laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun ñu ne yàlla mooy ñan mu ne alladina amanu wa kaanu yattaquun kon mbokk jullit yi maa ngi tënk li ci des ci waxtaan bi incha allah ñu def ko débat ak mbokk yi baax yi fi nekk ci jàkk ji boroom xam-xam yi sunu sëriñ yi ustaas yi daal ci yokk ak sunu papa yi ñoo ngi jégglu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa